ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala noo ngi koy baat noo ngi koy kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu boroom moo ko jagoo ñoo ngi jéggalu sunuy bàkkaar ñoo ngi tuubit jëm ci moom noo ngi muslu ci sunu bon boni bakkan ak sunu ñaaw di fi jëf nu ngi téere ni képp ku yàlla subhanahu wa ta'ala gindi na ko kooku aji gindee ko la ba baawu te dara mënatu koo dëngalooti waaye ku sunu borom bàyyee ak boppam ba mu sànk kookee ku sànk la ba baawu te dara mënatu koo gindee nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala bi asmaa'il husna wa sifaatihi al-ula mu boole ñu ci jaamam yi may gindi comme niñ ko xamee ci ay bés yu ne ci waxtu wi noo ngi dellu si waat ci ron keppaaru xam-xam waaye ci ron keppaaru alquran nuy fàttali alquran lay borom bi subhanahu wa taala wàccewu ko muy téere bu nuy jàng pour di ko barkeeloo déedéet wàccewu ko moom sunu borom muy téere bu nuy jàng pour di ci yéemu déedéet waaye borom bi daf koo wàcce ngir ñu di ko jàng di ko tadabbur di ko seetantal ndaxte wallahi rabbil alamin njariñi àddina ak njariñi àllaaxira yépp sunu borom daf ko dëxëñ ci téere bi de te loola boo ci amee tuuti sikk laaj ko ñuñ alquran fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun ñu ngi nekkoon ci saar bii di suratu nuur muy saaru leer may baamtuwaat ndax baamu dana jëriñ saar bi dañ mbokk yi laaye duñ ca taxaw rek laaye duñ yëg dañuy gën a yëgaat ak war a farlu gën a yëgaat ak war a teewlu ndax mbokk yi saar bi saar bu kiimaane la suratu nuur damay defaru biir kër yee ngi ci defarul ñi ci biir kër yaa ngi ci defarul mbedd maa ngi ci waaye defarul réew maa ngi ci defarul àddina baa ngi ci saar la boo xam ne borom bi def ci dëxëñ ci ay xeeti njàngale yu bari ci yar ab julit ba ku ko gis xam ni kii ci ron keppaaru njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko ci xeeti njàngale yu am solo yi nga xam ni yenn yi jot nañ koo romb yi ci ëpp sax ñëwagut ñoo ngi taxawoon ci laay ju am solo yëpp solo ko laay yi moo tax léeg-léeg ñu taxaw ci aaya lu yàgg def ci ak njàngat seetantal ko ban lu ci li ci génnee ci ay njariñ ngir nu mën koo jariñ borom bi subhaanahu wa taala ci laay ñu taxawoon keroog muy laay fanweer أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات ñaari laa yaa ngi nii yoo xam ne góor ñi dañ cee am wàll jigéen ñi am ci wàll laay ju am solo ngi joo xam ne ku ko dund wallaay di nga noppalu ci àddina mbir yu bari yoo xam ne dafay sonal nit te su ma nee nit maa ngi namm xol ba ndax xol moo tax ñu naan nit ndax su baaxee lépp baax su safaanoo lépp safaanoo comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ëpp lii sonal xol nit ci àddina bokk na ca mooy ñàkk jëfe laaye ji sunu borom subhaanahu wa taala ci laaye ji mu ni waxal jullit yu góor yi qul lil muminina waxal ñu gëm yàlla ñu góor ñi yaxuddu nañuy sajj min absaarihim ci seeni gët ci seeni gis bët yi la yàlla war dëggal muy xéewal bu rëy boo xam ni ci ngay xool di mën a xàmme boo ko ñàkkoon tey ak ni muy tuuti tuuti nga ñàkk lu rëy am na ñoo xamante ne li ñu gën a bëgg mooy seen borom yàlla war sëg leen ay bët ñuy xool xoolal sa taar bi di jur ko ba mu màgg ba sax sikkim te xamoo ndax daa xeetam daa xeereel ndax yàlla daa xañ bët xoolal ngay dox di palantoo ka làmbaatu doon ci bëccëg lañ nekk mu leer nañ ndax yàlla danaa xañ ay bët xoolal kii dox ba mu yàgg mu mbëkk potulaam bu métti lool ba yow nga koy gindi sax mën nga caa jooy ndax mbir mu yërëmtalu la ndax yàlla dangaa xañ ay bët xoolal kii dox ba mu yàgg di palante ko ba ñu fa tëb ci ak kàmb amaana sax ay sobe lañ fa defoon mu daanu ci biir ay yërëm tax lool ndax ndeysaan yàlla da koo xañ ay bët am na koo xam ne mi ngi jooy jooyu xol ndax bu ko yàlla wërsëgaloon ay bët mu mën a tiim téere bi di jàng semaine bii paase ba ko jiitu seeti naa góor gu ma xam gu yàgg gu ma ma xam ci bëgg alquran ak sunna ndax ci laa ko xamee woon ma gëj koo gis lool ñuy waxtaan ba ñuy waxtaan naa ko yow de léegi magal nga mu ne mi ngi ci quatre-vingt-quatorze ans ci ren mu ne ma léegi bët yee naqar yi li ko gën a metti mooy fi ne alxuraan gi mu doon tiim di ko jàng sax fi ne mënatu ko léegi bokk na ci li ko gën a métti allahu akbar maa ngi fàttaliku dar sab tafsir bii ñu nekk nga xam ne bisab àllarba la mu ko def biñ doon jàngale fañ dëkkoon bisab àllarba la woon dars bii bañ koy tos góor gi may ne ci li fekkee na ko daana ci ñëw waaye xoolal kooku tey yàlla nattoo ko ay bët yow yàlla mi ngi demay ay bët kalamtuwoo daanuwoo kooku la la la gën a war mooy remercier yàlla subhanahu wa taala sant ko gërëm nga am na ñu bëgg li nga yore ci xamoo ko waaye nag arab ba ne woon na asaxatu taajun fawqa ruusil asaxa ila yaraha illa al marda wér gi yaram maxana la mu ni cogg ci kaw bopp ki wér waaye ku wér ni moom du ko gis moom it du ko gis ku feebara ko mën a gis moo xam njëriñ bi ki yëg loolu nag xéewal bët la bu rëy xéewal lu bët xéewal bu rëy suñu borom ñu li ma la ci sant bokk na ci mooy qul waxal lil muminina ñu gëm yàlla ñu góor ñi nangu ni yàllaa leen war a digal ñuy def mu di leen tere ñuy bàyyi yaxuddu nañuy sajji nañuy wàcce nañuy tee min absaarihim ci seen gët yi ci seen bët yi di ko wàcce ci bañ a xool lu xaram wa yaxfadu ñu wàcc wattu furujahum seen awra yi mooy seen pëy yi bañ a def ak mooy yàlla defal ak man ñu ànd def ak taxaw seetlu qul lil mu'minin yaxuddu mu ni min absaarihim waaye furujahum nag yaxtadu rek amul min furujihim borom xam-xam yi dañuy wax ni min gi li tabaid min gi li tabaid loolu la borom xam-xam yi luga yi wax donte am na wuute lan mooy li tabaid mooy lil baad sajjal sa xef wàccil sa bët yi bul xool dan laa tere bul xool waaye ndax lépp lan la lan duxul la xool ko lépp lan la tere ñu ne déedéet min absaar yi mooy ci seen gët yi mbir yindi la bul ko xool am na yun la ca may la xool ko su fekkee am na sabab bàyyi la xel bu baax li may wax ndax alquran dafa bari sew sew te ñu koy romb di jàll te duñ ko jariñu jigéenu jàmbur ji la yàlla tere nga di ko xool wala awray jàmbur ji yàlla tere nga di ko xool mbir yi la sunu borom tere nga di ko xool am na fu muy daganee nga xool ko ci kaw bu amee sabab bu lislaam nanga miñ gi ñëw foofu dugg foofu ne su miñ gi ñëwul woon kon yaqdu absaaram day tekki ni kon tufaaqan dagalul nga xool amul fenn fu muy dagane waaye min ji li tabaid mooy yenn yii lan la bëgg a wax dagalu jigéenu jàmbur te du sa mahram nga jaakaarloo moom fixé ko di ko xool xool bu mën a bi ci bànneex loolu daf xaram am na fu muy daganee fu muy daganee moom su fekkoon ci nit ñi day xool jigéen ji ngir bëgg koo jël soxna su fekkoon ci daal qaadi la mu war a àtte faw mu xool ku góor ki xool ku jigéen gi xam li muy àtte lan la su fekkee yu mel noonu nga xam ne lislaam day nangu nit ki xam ci muy jëf ñetteel kumu bu ñuy jël seede faw ñu xool nit ki xam ni kii kat mooy diw ah kon yooyu ay setti la yu mu daganee kon min abataar yi su yooyu génnee dagan jullit bu góor bi jàkkaarloo jullit bu jigéen bi di ko xool ba man caa bànneex wa yaxfadu ñu wat foofu amul min mu ni furujahum lu tax ndax xebbul furuj moom amul fu muy daganee ndax su soxla taxut ñuy wax ndax kooku leew na taxut ñuy wax waaye jigéen day jigéenu jaamur moom amul kenn ci lislaam fu muy daganee nga ànd ak moom ci lu dul sëy dox seen diggante moo tax foofu aajowoo min seetlu lu baax alquran baliir wax yàlla soxla wax yu jot la aajowul min lu tax góoru jaamur ak jigéenu jaamur ànd du dox seen diggante mukk lu dul sëy dafa dox amul fu muy daganee bokku tax xool ba moo tax fee min am ca absaarihim furujihim nag min aajowu fa ndax amul fu mu daganee ba min di fa dugg alxaafis bnu kathir mu ne laaya ji tegtal la sunu borom yàlla subhana taala di soññ jaamam yi yu gëm yàlla yi nañuy taggi seen xel te maa ngi wax ne mbokk yi aaya ji wallahi di jafe woon a dund la àll neet waaye gën naa jafee dund ci jamono bi ñuy toll te defe naa li may wax yéen a ma ko gën a xam mooy yàlla dafa bari li nga doon wax na nga ko tajjal say xet dafa néewoon ba pour nga jëfandikoo aayat tajji xet mën ngaa xëy suba ba ngoon li ci ëpp doo ko soxla ndax doo gis sax doo koy soxlaa waaye tey ci jamono ji ñuy dund ci sa biir kër journal bi ngay lire télévision bi ngay xool panneau publicitaire yi ci mbedd mi photo yi xoolal ñi ma lim lépp jëmm ji dox sax ñëwagul lu taxoon ñuy wax sax ñëwagul fi nga mën a ñàkk a jëfee aay ji dafa bare bare bare ba mën nañoo lim yëpp fàtte sax jëmmi nit ki te jëmmi nit kee taxoon lay wax waaye jëmmi nit ki moo feeñaat foofu te bàyyi xel ne lan la tere xool ko ci nit ki nga di ko daw foofu ñun ci bu rëy lañ koy def da ngay tiim journal wala télévision wala naa nga teen ku futteeku lan la doon tere ci moom yaa ngi ko cay gis nga fixé ko di ko xool wallaay yëgoo ni lii daa suppeeku dugg ci télé bi lee suppeeku nekk ci panneau publicitaire ba lee suppeeku nekk ci journal bi waaye kii mooy kee ñun ñaar lépp bokk la fekk yaa ngay bàkkaar te yëgoo ko moo tax xoolal musiba yim ni jural tey sama kalaat bi mbokki ndongo yi ana mën a mokkal subhanallah da ngay koo xam ne xel mu ñaw la yoroon ku mën a mokkal tey mokkal da koo tëj da ngay waa joo xam ne ku gaawoon ci jooyal yàlla la subhanahu wa taala tey da koo tëj da ngay koo xamante ni bu rokkat ci xolam bi ngëm yàlla lu yomb la maanaam moom du jar nga koy puus ay kilomètres pour mu tàkk waaye boo ko puusee ay centimètres rek mu tàkk parce que xol bi baaxoon na boobu tey da koo tëj da ngay gis koo xamante ni pour leçon bi ñu koy jàngal mu comprendre ko daf koo jafe mbokk yi wallahi yëpp dafa am alaqa ak nit ki li muy xool loolu balaa dara ko bee jeex da nga ci am mbir yu gën a leer li ma wax kon sunu borom yi nañuy tagg suñuy xet wa yaxfadu furujahum ñuy wattu li nga xamante ni mooy sunuy awra wattu yi awra fii nag lim ci namm moom mooy ñaari mbir yëpp da ciy dugg fexe ba sa awra doo ko feeñal waaye fexe ba tamit doo jaar fu lislaam bëggul nga jaar fa muy njaalo ak ak i mbokkam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni benn saxaaba daf koo laaj ni ko waaw bu fekkee xool bu bette na an nadril faj ah ah mu ni fa fa amarani an asrifa basari te xadis mi ngi ci muslim benn waay dañu ko waaw su fekkente ni xool bi moom damaa sigg rek yam ca aw ma jubluwaay ci xool lu araam li waaye maa sigg rek yam ci te xanaa loolu day dal ku ne ci ñun yéen yàlla ma su boobaa wàcceel sa bët rek gaaw wala nga feneen ci xool feneen waaye doo am bàkkaar benn xadis a ngi nii donte nag ñu naan amaanatul almiya dafa daif xadis moom dafa daif waaye maanaa bi lu wér la mooy Ali dafa laaj yonente bi ni ko waaw su fekkente ni da ngaa xool xool bu njëkk ba mu ni boo xoolee lu njëkk loola mooy nazaril faj ah mu ni loola jéggal nan la waaye nag la delluwaat nag ca ngay am bàkkaar ndax bi nga siggee yam ci lu bam sëggal maan asafi shadid lii ci fi ñuy dund tey tey dund ko dafa jafe ndax damay wax ni boo xoolee lu bon war a féné ci fa ngay féné ci leneen lu bon ma nga te doo dox di sëgg ci sa roni sax boo ko defee mën ngaa daanu wala nga laal bëkk loo warul bëkk wala demee noonu wala wata dal sa kaw mun a dox ci gëmm mun a dox wàcce kaala ba muur sa kanam sax doo gis fi ngay jaar nasal allahu salaamata wal afia kon nan ngay dundee laay ji ci boppam wallahi ci jub bëgg koo dund sax problème lay am naka ngay dundee laay ji moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni iyaakum wal julus ala turuqa mi ngi jox solution mooy ci ndiku leen toogaayu mel boo ko defee naa góor ñi ñëpp amuñ jotam waaye jigéen ñee moom boobu doonte seen wàll yëg teeku saxaaba yi ni ko léeg-léeg dañuy am aajo ci mbedd ndax féexul wala yu demee noonu mu ni su mënta ñàkk ngeen toog ci mbedd na ngeen di jox mbedd mi àqam saxaaba yi ni ko lan mooy àqu mbedd mu ni àqu mbedd mooy raddul basar téyel sa bët ba du xool jigéenu jaambur ju sol lu bon bu dee góor kadaalika wala booy xool lu bon wa kafful ada fexeel bu lor kenn lor nag nit ki day dégg ay jëf wala muy ay wax ci sa laam wal amru bil maaruf loo gis lu baax lu ñu war a digle sañoo caa noppi ndax yaa génn ci mbedd mi soo ci noppi da ngay am bàkkaar joxoo a mbedd mbedd mi am wa nahyi anil munkar loo gis lu bon ku daggu saaga da nga kaa war a tere boo ko terewul am nga bàkkaar parce que yaa génn ci mbedd mi kon fa kay fa kay dox fa kay fa kay dox sa fa kay fa kay génn ca mbedd ma gis ngeen kon yent yàlla bi nee na ku ma mën a garantil juróom-benn yii ma garantil ko ajal na nga fexe ba boo waxtaanee bul fen buñ la wóoloo bul wor boo joxantee rendez-vous bul fóote sa jal sa gis téyel sa loxo ba bul jël yëfi jàmbur téyel sa awra ba bul njaalo bul mooy yàlla juróom-benn yii mu ne ku ma ko garantil ma garantil ko ajal kon sunu borom mu ni qul lil muminin waxal ñi gëm yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ni qul lil muminin waxal ñi gëm yàlla yaxutu nañuy sajj di wàcce min absaarihim ci seen gët yi ci seen bët yi ci seen gis yi ngir moytu ni ko xool lu bon ak lu xaram te xoolal dafa mel ni jamono bi ñu toll sax góor ñi jigéen ñi leen ëpp sens allahuma lu dul bi jamono suppee ko ba ay góor di futteeku nekk ay mbëri làmb te foofu damay wax ne seetaan làmb ci xaram yi la bokk seetaan làmb dafa xaram jullit mu di ko def muy ko góor muy ko jigéen yéen yàlla bi day tee góor sax mu xool awray moromi góor te wér na ci xam-xam ni alfaxiru awra lu lu bëgg góor muy poojam loola ci awrey góor la bokk góor gu futtee ba ay luppam di feeñ def na lu xaram ka toog di ko seetaan ma ngay seetaan lu xaram jëfandikoowul njàngale yonent bi jëfandikoowul njàngale borom football it ca la bokk ndax ka ka football kilot lay sol ay luppam di feeñ te mënoon damay seetaan football te du ma seetaan kilot bi jàmbur wallahi mbokk yi giñ naa ci màgg ak yàlla mbaaxam mi ngi foyee suñu pas-pas te yëgul ba da ngay gis koo xam ni amaan na ku baax la ku góorgóorlu la waaye dafa bàyyiwul xel sax ci li muy def kon li tax ma ne jigéen ñi ëpp sens mooy foo wëlbatiku tey li góor ñu di ko sol génn jigéen ñaa ngi koy sol jigéen waaye góor ñu dul ñu dul ñuy futteeku néew na jigéen di génn gis góor gu futteeku sol lu ba kon jigéen ji yàlla baax ba du seetaan théâtre te théâtre ci xaraam ci tànn la bokk théâtre film wallahi rabbil alamin daf xaraama seetaan képp ku la wax ni dagan na kooka bëggalu la mbaax bëggalu la jub ay tappale da cay am ay fen da cay am woote woo loo nekkut da cay am ay musique da cay am nga ni man du ma déglu musique te action yu gannaaw yi am ci film bi yëpp dañ la koy musical ngay déglu ngay du ma da xool lu bon damay dem xabdul basar te ñu sol lu bon rek a ci nekk waa ji teg ab dul di def lu caay caay def action bu reelu wallahi nga mën cee reetaan wallahi yàlla xam na ni barki démb taal naa sama poste télé di déglu journal yem ci benn publicité xam naa li ma wax su fekkee am na ñu ko déglu baat baat boobu wallahi rus naa koo tudd ko gis nga kàddu ko ki ko wax wallahi maa ngi gëm ni bu tuubut ci yàlla yàlla dina ko toroxal fi dunya qabla al axira lam wax ñemewuma koo tudd sama làmmiñ wax ju bot ju salte ju xamani ju ñàkk teggin la wax askanale ko yàlla subhanahu wa taala lii maa ko dégg kenn ci liwu wax ju bon ju xamani ju ñàkk kersa sax mu wax ko askanale ko yàlla subhanahu wa taala damaa tijji rek yem ci rek ma tëjaat bi ma koy déglu sama soxnaa ngi koy dégg damaa taal rek ñu yem ci ma fayaat te xam nga li gën a naqari ci xol mooy ab aaya alquran la la cay tegtaloo ca lan doon wax ab aaya alquran la sukkandiku di wax la muy wax yow nga di ko seetaan muy action bu bu boo xam ne yow ni nga koy tuddee lu reelu na nga ree ca wallahi li ma gëm mooy boo amul sax yaa ngi dugg ci tëkkub bi suñu borom di wax ni qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ndax yéen saboote yàlla moo leen dese akub yonenteem gis nga yow mi woote woo pas-pas bu seen gamaan toog nga mën a seetaan loolu ab tubaab boo xam ni mi ngi toog di fóonal jéeg tubaab bu jigéen nga toog nga ni def muy teel nga ne ab jullit nga yow bal dañ koy def sax léeg-léeg gis nga noonu lislaam yi dañ koy programme ci waxtu julli ci waxtu julli ci nit subhanallah da ngay gis koo xamante ni yaa fi kete tane mooy koo xam ne day gaawal julli ji ngir bañ benn action raw ko ci kete ne mooy def loolu am na koo xam day fekk seetaan film ba mu jeex mu doog a julli ci gis nga télévision wallahi silaaxun zu xaddayn bal damay wax sax xam tuuti ko ma ni zu xaddin waaxid paaka ñaari boor la xam ko ne ni paaka benn boor la lan cay tegeeku néew di ko askanalee diine boo ko toppee ba ca biir sunna moomu ko bidaa ko moom kon ab julit ku war a fiir la ci pas-pasam amul ngëm-ngëmam am waxuñu ne sa lay def xaram xëy na am na ñuy wax loolu waaye waxuma loolu de nit ki mën naa utiliser télé ci lu baax am nga ca seetaan yu dagal waaye yu bari bari yoo xam ni islam dala ko doon tere yaa ngi ciy góorgóorlu ci biti yaa ngi koy def ci biir téye góor kon wa yaxfadu furujahum wattu seen awra ba nu ca warul feeñ di ca feeñ ba du ma caaxaan ak góor jaaxul suñu borom ni daalika loolu azka lahum moo gën a sell ñeel leen moo gën a setal seeni xol ci Abdurahman ibn Nasir Saadi mu ni lii day day leer sax sax yàlla leeral xam ko la sa xol jigéen ñi jël leen seen gone yooyu waay moo tax ñëw na ci xadis yonent yàlla bi nee na ma min muslimin yanduru ila mahasin imraatin thumma yaruddu basarahu illa axlaqa allahu lahu xalaawatan yajidu ah ibadatan yajidu xalaawataha képp ku siggi sa bët yam ci lu jaamur bu jigéen loo wër ta xool nga ragal yàlla tax nga tëggaat sax bërëm yàlla dina ko remplacer ak jaamu yàlla goo xam ne seddaayu xol ba da nga ko yëg ci sa biir xol ba nga yëg ni lii lu bàyyi koo fa yàlla subhanahu wa taala kon sunu borom ni inna allaha sa borom yàlla xabiirum aji xam la bima yasnauna ci li ngeen di def mooy yaalamu xaainata al a'yun ma tuxfi sudur xam na li bët di sàcc di xool ak li dën lay nëbbu donte yaa ngi koy nëbbu nit ñi mën nañoo ànd ma ak yow ma xool lu bon te yëgoo ko sax waaye yàlla yàlla mu xëy naa ma tax gis yàlla moom gis na booy kenn li ci gisatu ci yàlla gis. Abi Hurayra mu ne yonent yàlla bi neen te lu ñu ci Buxaari Muslim kutiba ala ibni aadam xaddahu min ad-dina adraka dalika la maxaala doomu aadama ju ne yàlla bindal na ko cëram ci njaalo foo jaar jël ci xawaal te dégleen xadis bii kii góorgóorlu ba mucc na ci njaalo ki góorgóorlu ba mucc ci njaalo di sant yàlla defe ni mucc na jàll na jéggi na pont bi da déglu xadis bii doomu aadama ju ne yàlla bindal na ko cëram ci njaalo faw nga jël sa wàll la maxaalat ñu ni ko déet waay mu ni waaw fa dinal aynayni an nadar sa ñaari bët yi ñi ngi njaalo te yëgoo ko nu ñuy njaaloo mu ni ndax da ngaa xool loo war sa xool ah mu ni wa dinal li lisaan an nut sa làmmiñ yi ñi ngi njaalo te yëgoo ko lan moo lan mooy njaalo bi wax ju bon gi mu wax jëm ci mbirum ay jigéen ki nangam loola mooy njaalo bi te yëgoo ko wa dinal usnayni al istimaa sa nopp yaa ngi njaalo te yëgoo lan la njaalo mooy ba ñuy wax wax ju wax wax ju saay saay jooju moo xam ci télé bi la moo xam ci rajo bi la moo xam ci théâtre moo xam ci film bi la moo xam ci mbedd mi la yaa ngi koy déglu mu ne wa dinal yadayni al barash ñaari loxo laal gam laal lu bon la loola mooy am njaaloom jël na wàllam boo yëgeeg boo yëgut mu ne wa dinal rijlayni al xutaa ñaari tànk yaa ngi njaalo te boo yëgeeg boo yëgut ndax ñoo dox dem mu ni wan nafsu tatamanna bakkan bi ndébét nag di ñoddee ku bëgg a yegg ca musiba ju mag janal mu ni wa tastahi di bëgg ah mu ni wal farju yusaddiqu daari aw yukadibu léegi nag bëyu awray nit nag moom mooy dëggal wala mu wecc mooy njaalo bu mag waaye yu ndaw yi moom jël nga sa wàll ba noppi yu ndaw yi moom jël nga sa wàll ci njaalo ba noppi boo muy tudd ko yëgal ni ah njaalo bu mag gi nga defagut waaye yaa ngi njaalo njaalo bu ndaw te yëgoo te kenn ku ci nekk bu ak ni nga bañee njaalo war ngaa nattu bu baax ci nattu bu baax ci xadis bii kon yent yàlla bi ne sallallahu alayhi wa sallam kullu aynin baatiya yawma alqiyaama amul bët bu du tuur rangoñ yawma alqiyaama ndax tiit ak jaaxle ak jàq ak musiba yaag ya fa nekk mu ni illa aynan gadab an maxaarimillah ba des bët bi nga xam ne dañuy jàpp seen lu bon rek wàccewaat parablis bi ko yàlla defal muy xef yi allahu akbar mu ni bët boobu moom jooy yowmal qiyaama yi dana ca mucc mu ni wa aynan sahir fi sabilillah bët boo xam ni borom daa fanaanee xoole te fekk loola ma nga nekk fi sabilillah fi sabilillah nekkul ci xareke te yaatu na lool mu ni wa aynan yaxruju minha mislu rafsi dubaaba dubaab min xasiyatillah koo xam ni ma nga tuur rangoñ woo xam ni toq wa tol na ni aw weñ allahu akbar toq rangoñ wu ni put wu tol ni aw weñ wuy naaw te la ko ko yóbbee mooy ragal yàlla subhanahu wa taala waxte yàlla day wax ci xadis mu ni ci xadisul xudsi mu ni man yàlla rus na maa lakk ab jaam boo xam ni wéet na xelam dem ci yàlla mu tiit fàttaliku bàmmeel ak xataay ba ak wéetaay ba foo daw jëm amu fa koo yuuxu mu lay xitili si amul yow ak say jëf ak sa borom rek nga xalaat ci loola tiit wettili koo yàlla tuur ay rangoñ ngir bëgg a mucc sunu borom rus naa lakk bët boobu kon borom bi subhaanahu wa taala lii lépp daf nu ko defal mu nekk ndimbal loolu tamit noonu la jigéen ñi amee seen wàll sunu borom di waxul lil mu'minaat waxal jullit yu gëm yàlla yu jigéen yi yaghdudna ñoom it nan wàcce min gis nga ba léegi min abasaar yi in na ci seen gët yi nañu sajj seen xef yi wa yaxfas nañu wattandiku ñoom it furujahunna seeni awra lu dut seeni borom kër nëbb say awra bu dee lu nuy gis ña ko war a gis rek ka koy gis wala ka ko war a gis waaye njaalo moom ak i mbokkam doo ko jege ci fenn ci lu jege ak ci lu sori laaye jii muy wet ñu ko góor ki ak wedd ko jigéen ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk benn tafsir ak la leen sunu borom tere subhanahu wa taala la yàlla tere ku góor mu def ko loolu la yàlla tere ku jigéen mu def ko allahuma lu dul bu fekkee ni ki daa gis ku jigéen bëgg koo jël soxna wala mu gis ku góor bëgg mu nekk borom këram te caaxaan amul ah su boobaa nag yent yàlla bi nee na xoolal ndax loola mu gën a tax nga gis lu la xemmeem loo kon bunt yooyu l'islam moo ko tijji maye te xool ba nag dafa am ko mu yam tamit nag loolu tamit lu ma tabaay xel kon mbokk yi li ma bëgg a wax mooy yàlla day subhanahu wa taala ci boppam ñaari laay yi dafay yar ñi gëm yàlla ngir ñu fexe ba wàcc ku ñuy wàcc seeni xef di moytu ndiku xool yu bon yi borom xam-xami lislaam yi dañoo tënk ay mbir ci wane jàngale suñu borom saa boo ko defee rek gis ci ay njëriñ dañoo tënk ay mbir yoo xam ni maanaam dafay wane sàmm sa gis ba doo xool lu xaram ban résultat la mën a jural ci gëm yàlla bokk na ci lañ doon wax xam ngeen dar bi paas jotoon naa ci jullu asbab xam ngeen wax kam doon wax ne kullul xawaadisi mabda'uha min annadari wa mu'zamu nnaari min mustasgari sarari kam nazratin fatakat fi qalbi saaxibiha فك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر وخجو أمصله كل الحوادث مصيبة يجي في يوم تيجي تقول بجيجي mu ni mabda'uha tàmbali ba min an-nazari xool la woon bu xool amul woon du yegg xool ngay def xemem ñoddeeku jëm ca ba mu ci wa yegg daay bu mag gi lakk dëkk bi ferñeent wu ndaw win doon xeeba ko waral kon xool bi ngay xeeb musiba la te xamoo ko xam ngeen ni waxkat doon na wax ni ah saa boo sànnee sa bët متى أرسلتك طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر سابو ساني تبت بكني خول والله خول دنا لا جيتي ci jakk jo bëggul julli comme ni ko la fi léegi dana la yóbbu foo bëggul mu ni aka bari xool boo xam ni da nga ne tap xool mu ni pat ci sa xol fataka ni tay ci sa xol bi jam ab jam jam fatka sihaani xool ba jam na ci sa xol jam gu mel ni na fett di jameew yaram bila xawsin wala wata xalaat xocc amu ca fett amu ca dara amu ca waa ji yorul fett yorul fenes yorul dara waaye jam nan ko ci xol ndax xool bi mu xool moo wër ba dikku dóoru dënnam mu ni nit ki nag saa bu amee ñaari bët jàpp ni ñaari bët li muy jariñ mooy xaan-xaani bu ko neex xool ah wallahi mi ngi taxaw ci montagne danger jullootu jekku na ko lool te yëgu ko yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bi sururin jaa bi tarab ne ngaa yee yaay mbir mi boo xoolee di nga ci am bànneex yaa ngi jënd musiba yu rëy ci bànneex bu tuuti ndax la ngay amee ca xool ba tuuti bànneex la te doo ca mën a jot bal bu weesoo wala mu fàddu nga récc mu ni man de du ma dox laa marhaban du ma entrer mukk bi sururin gan ak mbégte goo xam ni jaa abi darar buy ñibbi damay bàyyi ay lor maa lànk laa marhaban bi sururin jaa abi darar gan ak bànneex goo xam ne buy ñibbi daf may bàyyee fëri cëp lor mu ni du ma ko entrer sama kër kon gis nga bay naa la ay mbir yoo xam ni borom xam-xam yi dañ koy cité muy ay njariñ bi ci njëkk yuuritu sixat al firasa allahu akbar xam ngeen luy alfiraasa am na ay nit yoo xam ne yàlla daf leen defal tawfiq ci ragal yàlla ak di xool lu dagan néew na lu nuy gis wax rek wax jëli mooy léeg-léeg am na nit ñoo xam ne seen ak ragal yàlla ak seen ak njàmbaar yàlla da leen di may maanaam seen ak gis day nekk dëkk dañ xamam li kumpa te fekk du kumpa su loolu Omar ibn Xattaab waxoon allahu akbar keroog bi muy defar sàpp bi jaar jaaraat jaar jaaraat jaabante jaabante mu ni wallahi man seen sàpp bi neexuma dara te fekk ci xare lañ nekk mu ni seen sàpp bi neexuma dara fekk booba yàlla gis loo na ko nekke booba ñenn ci alxawaarit ñi ne war a sos xawaarit ci jamonoy ali ñenn ca ñooñu ñi ñi ngi sos ñi ngi ci mbooloo allahu akbar ndekk loolu ko yàlla defaloon subhanahu wa taala ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bare bare bare ba léegi nag day am du saxaaba yi ñoo ko jagoo gis nga nit bu góorgóorloo wattu ay bëtam ci di bañ a xool lu bon muy góor muy jigéen yàlla dana ko defal néew na lu ab seetloom di mooy man de kii wax dëgg yàlla man daal ay mbiram man luus na trop te fekk du ñaaw njort dara waaye tiggi xool rek tëggaat rek da nga yàlla dana ci wan lu bari parce que ragal yàlla gi nga def ci bëti ci la la yàlla y wanee loolu te loolu ku mel ni ibn al qayim di imam ju mag ci aimatu salaf day dëggal lu mel noonu moo tax sujaa alfirmaani mu ni man ammara zahirahu bi ittibaai sunna ku dundal sa biir ci jëfe sunna sa biti wa baatinahu bi dawaami almuraqaba sa biti nga dundal ko ci fuglu yàlla foo toll wa gadda basarahu an il maxaarim fexe ba sa bët du xool lu araam wa kaffa nafsahu an ishahawat fexe ba sa bakkan bànneex yi nga naj ko ca wa akala al xalaal ngay fexe bay lekk lu lew lam tuxti firasatuhu mu ne yow li ëpp sab seetlu du mooy wa kaana sujaan jàmbaar digi ngay doon laa tuxti lahu firasa yow boo seetloo sab seetlu du mooy bokk na ci njëriñ ji yaftaxu lahu turuq al ilmi wa abwaaba allahu akbar boo nekkee ndongal xam-xam di sàmm say gët yàlla da lay ubbil bunti xam-xam da ngay gaaw a mokkal sa dund day leer da ngay am dégg-dégg ci alquran wallahi nit mën naa sarax a jub yow nga gën koo dégg sax lim sarax ah fekk yàlla moo lay leeral sa dënn di la dégg loolu wattaqullah wa yuallimukum allah gis nga de ngeen di ragal yàlla rek yàlla di leen xamal kenn ci salaf mu ni góorgóorlu nga ragal yàlla te ngay jëfe li nga jàng léegi yàlla dolli la xam-xam boo jàngewul fenn bu dee am na lu ñuy tuddee sol xanaa loolu waaye leneen lu dul loolu ay naxasakandang la loolu wérul bokk na ci ay njariñam mooy yurisu quwata al qalbi wa tabaatahu wa sajaata gis nga kiy tàmm ay bëtam di xool lu dagan bañ a xool lu xaram yàlla day def xolam day dëgër dafay ñeme dafay ànd ak sagoom li tiital nit ñi du ko tiital li déranger nit ñi du ko déranger musiba ju rëy bu amul day ànd ak sakina dal parce que day fekk xol bi dal ndax day fekk yàlla moo ko may leer boobu te bokk na ci li ko may mooy sàmmonteeg di xool dagal moo tax imam xasan albasri mu ni innahum wa in hamlajat bihim albigaaru wa taqtaqat bihim albanazinu inna dull almaasiyati la fi qulubihim aba allahu illa an yudilla man asaa mu ni mbir mi nekkul ci ay warluy nongi nongi ni albarazin albirzin am na xeetu fas diggante xeeti berkel yoo xam buy daw nii lay def day nongi nongi moom la ñu xam waral na Omar ibn al-Khattab Omar ni mukk mukk mukk wàcce leen ma man ki ngeen ma waral seytaane la day nongi nongi comme fauteuil bu am ay retour mu ni bu ñu waral fasaro yi mbaa ñu waral daaba yi nongi nongeeg ñoom ah mu ni inna dull al maasiya torop taangeeg mooy yàlla la fi xulubihim mi ngi ci seen biir xol yi yàlla bañ na ah yàlla bañ na lu dul rek daa toroxal ñi nga xam ne ñoo ko doon mooy bokk na ci li muy jural nit ki moom mooy yuritu lil qalbi sururan wa farxa day waral nit ki foo ko gis da nga yaakaar ni journée bu xëy neex na da ngay nit ki léeg-léeg mu meraw léeg-léeg mu amul naqar léeg-léeg moom ay problème léeg-léeg mu jeex tàkk ci xalaat am ami jafe-jafe waaye da ngay gis koo xam ne yàlla dimbalee na ko muy sajj ay bisam lay tànn bis boo ko teebtee da ngay jàpp ni keroog la journée am gën a neex fekk yàlla moo def xolam moo dal day yëg ay kontante dënnam day yaatu du yëg lenn loo xamante ni mooy musiba wala lu koy nu mu tëdd sonal ak njariñ yu bari yoo xamante ni maa ngi ragal ni su ma ko toppoon damay lim bokk na ci li may munta fàtte rek mooy imtisaalu li amri rahman subhanahu yàllaa digle di defal nangamal kon kii sajj ay xefam mi ngi góor-góorlu di jëfe loola kon wallahi mën na koo fegal buntu sawara ndax loolu la suñu borom digge ci jëf ay topp yàlla subhanahu wa taala bokk na ci ba léegi yàlla da koy remplacer ak leer ci xolam xolam alxuraan ni mu jotee xam nga yëpp dégguma ci waaye bi yàlla waxee aayat sajjub xet ba àggal xam nga lu mu ci teg allahu nuuru samawati wal ard gis nga allahu nuuru samawati wal ard matalu nuurihi fi qalbi al mu'min allahu akbar gis nga de gis nga aay ni mu toppalante matalu nuurihi fi qalbi al mu'min ka mishkaatin fiha misbaax al misbaax kon saa boo jëfee santaane bi laayab yi njëkk ji rek santaane bi laayab ñaareel bi wala njariñi laayab ñaareel bi tàbb ci sa xol mooy yàlla da lay remplacer ak leer ci sa biiram xol kon mbokk yi borom bi subhaanahu wa taala dafay soññe jullit yu góor yi ak jullit yu jigéen yi ñuy sajj seeni xeet bokk na ci li gën a mën a dimbale jullit bi nag muy sajj ay xeetam bi ci njëkk mooy gëm ni lii ab santaane sunu borom la te sunu borom moom lu mu santaane saa bu ko jullit bi defee am ca tiyaaba insha allah yëg ni lii ab tere sunu borom la te sunu borom lu mu tere ku ko def yàlla mën na ca rëq sa dikk loolu bokk na ci li gën a dimbale nit ki mu di ko def donte nag maa ngi baamuwaat ni jamono bi ñuy dund jafe na lool nit ki jafe na xatul basar wallahi jafe na ki gën a jàmbaare ci ñun bëgg koo dund mi ngi yëg ay métti ci xol loo xam ne yàlla rek ko xam moo tax dama la waxoon naa ci daal jafe na xatul basar tekkiwul ni mooy ci sol dipp wala lu bon rek ma sëgg ki bàyyi luppam muy góor ma sëgg déedéet xataa ba ci poñeti àddina yi sax Abdourahman ibn Nasir as-Saadi jazaahullahu kulla xayr mi tafsir aaji da koo yaatal mu ni bokk na ci sax mooy diinatal xayaati dunya taataari àddina yi nga di ko sajjal sax bari waa na jigéen bu génn jëfewul njàngale islam bii mu romb taa xam kaw njàmbur ña ngi ko karale bam ni booy te jëkkëram amul bu ni mel mu ñëw am fitna wallaay jigéen ñëw ne di la bëgg a rey sama foog nga jëndal ma lalak foog nga jëndal ma aram waala foog nangam nangam fekk néeg jiw la dem da ngaa téyewul say bët suñu amoon lu mel nangam da nga kaa gis moo tax boo ko gisul woon da wax bu ñu amoon lu mel nangam gis nga ñaata yoon ngay romb wotof jàmbur wala kërëb jàmbur wala nangam xool boo ñibbisee loo ragal ragal yàlla doo ko mi ngi nii fàtt ci sa xol ngay bëgg lu ni mel moo tax bari waa na yoo xam ne dafay sonal aji gëm yàlla ci waaye di sajj ay xef bokk na ci liy dimbali nit ki ca loolu kon bokk na ci li gën a dimbali nit ki ci mu mën xatul basar mooy muy yëg ndigle gi waaye di bàyyi xel tamit tere gi waaye mbokk yi tomb bu am solo yi may bëgg a tudd bokk na ci liy gën a dimbali nit ki surtout ku góor ki nga xam ne ci moom lañ tàmbalee ci xatul basar muy fàttaliku la yàlla dig ñay sàmmoonteeg xatul basar ca ajana ja ab jigéen la nam mel dafa xeex wala dafa njool wala dafa sol lu bon wala dafa nangam subhanallah tadakkar naim aljanna wa ma fi ljannati min alxuuri lain wa ma aaddahu allahu li ibadihi salihin fàttalikul àjjana àjjana ji nga xam ne yàlla moo ko waajal ci loxol boppam lu tedd la bind fa ay jigéen yoo xam ni lam yatmishunna insun qablahum wala jaan allahu akbar waxuma la laal waaye góor goo xam ni jigéen mësu koo wax dama laa bëgg jigéen yoo xam ne lam yatmishunna insun qablahum wala jaan góor mësu koo ñenee wax dama laa bëgg qaasiraatu tarf lu tax ma jël aaya jooju xool ñun dëppoo sunu laay ji xisaru torop dañuy sajj seeni xef ñoom waa àjjana sajjum xef ma ni ba ca àjjana la dañuy sajj seen xef soxlawu moo xool geneen góor gu dul seen borom kër ci biir àjjana dañuy sajj seen xef soxlawuñ lu diw am ci biir àjjana ja leen yàlla wërsëgal lañ gis yi melokaani jigéen àjjana ak sa suñu jigéen aajowoo jël xaasiraatu taraf xoolum maqsuuraatun fil xiyaam jigéen ñi gàtt tànk lañ mayuñu dox loolu jigéen ñee ko war a jël tey suñu borom ni waqarna fi buyutikum melokaan yu baax yéene moom lañ soxla fii te ku bànnee xoowul melokaan yi fii wallahi comme ni Ibn Qayyim di waxee doo ko bànnee xoo fële ndax yéen fii nee na ku sol suwaar àddina bii doo ko sol fële sàngaraf àddina sii ku ko naan doo ko naan fële ci àjjana ci allahuma bi nga tuub yàlla jéggal fàttaliku loola xuurun maqsuuraatun fil xiyaam suñu borom ñu wax xuurun ayn ay jigéen nga àjjana yoo xam ne wallaahi danaa wax mbokk yi gis nga bu yaa bala yàlla wërsëgalee nga jaam ba def settantal ci waxu yonente bi ak waxu borom xam-xam yi ak nin lay melalee xuurun ayn xaw tuuti kon da ngay bañ a am soxna ci àddina moo lay gën ndax ndax boo gam-gam ne jigéen yi ca àjjana jigéen yi fii allahu akbar da nga naan ñoo ñaay ay jigéen waaye ñii ay tuurkat yi malit la wallaay li ñu wax moom pour seet xeet wala pour saboté déedéet waaye dama lay wax farq bi am ca diggante boobu ak jigéen ñi. jullit bu jigéen bi xam naa ne xelam li muy njëkk a daj ne nii mooy kon man lu may am biir ajana ma tontu ko la ummu salama yonente bi tontu ummu salama yonente yàlla day julli guddi di jàng wa uruban atraba di jàng ngay dem rek ndeysaan ummu salama nga koy déglu. Umu Salama am na lu yëngal xolam ndax jigéeni ajana yi ci boppam yëngal nañ xolam waaye li ko yitteel mooy ñun buñ duggee ajana lu ñuy am yéen di mu ne yéen bu ngeen duggee ajana yéenay dàq jigéen ñooñee lu tax ndax antunna almusalliya yéen a doon julli ñee julliwu yéen a doon woor ñi wooruñu yéen a doon joxe azaka ñi joxewuñ ko yéen a doon métis lu ñeen ñeen bi rek teg leen fee allahu akbar xoolal jigéen ju mel nii ñu ne la yow yaa ko dàq soo delloo ci ahlu siyaar am na benn jigéen ju dëkkoon Basra yi ñuy wax ubu ummu Ibrahim ci jaamukat yi yàlla yu mag yi la bokkoon benn borom xam-xam buñ mag bu ñuy wax Abdul Wahid noonu lislaam yi dañoo songoon lislaam mu dugg ci jàkka ji yéeg ci kaw minbar bi xutba pour ñaax nit ñi ci nañ dem jihaad yi allahu akbar bi muy waaraate bokk na ci ni mu doon xelem loo góor yi war a jihaad yi ñu fàttaliku bàyyi xel soxna yu yan ji yeleen di waaj di leen xaar ca ajana ca yent yàlla bi nee na benn jigéen bu lor borom këram bu war a dem ajjana jigéen gën a ca xóorule ay ni danaan ko toskare ñel na la yàlla nga alku yàlla la yàlla alak sa jëkkër jii yàlla da la kaa dénk rek léegi tey ngeen tàqali kooku moom fi ñun la jëm si loolu xadis la bu wér allahu akbar muy nettali di nettali ba àgg ci jigéen ñi ajana yi waxte ay wax yoo xam ne yëngal na yuuri jaami yàlla yépp xam ngeen lu ndaw ci wax ndaw ci dafa jub ne Abdul Wahid man day xam nga ma mu ne ko waaw xam naa la mu ne ko xam nga sama taaw bu góor bii muy Ibrahim mu ne ko waaw nga xam ne yàlla da koo tënk ci taar muy xale bu góor bu yaañ ba bu amasal sax dañuy ñëw ah di labatal seeni doom yu jigéen waa ju góor ci ndax ni ko yàlla bindee ci taar mu ne ko man nag sama doom ji dama kaa bëgg a labatal ca jigéen ñi àjjana yi fas yéene ma koo fasal tey fii allahu akbar xoolal nan la dégg waa ji di wax di tagg waa ajana jigéen ñi ajana yi wax ay wax yu bari wax yoo xam ne su ma la ko doon firi subhanallah day wax ni waa jigéen ñi ajana ya raadatin daati dalalin wa marax yajidu naacisu fiha maqdara xuliqat min kulli shayin xasanin طيب صليت فيها مطرح زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح الله su dégg arab nag mbokk yi neex na lool am na baat yoo xam ne firi ko ci wala sax yombut ay jigéen a ngi yoo xam ni loo xalaat ci xeeti taar yangi nañ ba romb ko yajidu naaitu fiha maxtarax ki ko bëggee décrire wan ko nit ñi ni nii la mel mu ni waxal lu la soob te loo wax rek jéggi na xuliqat min kulli shay'in xasan mboolem ñi nga xam yu rafet yooya la yàlla boole bindee ca jigéen ñoo jigéen jooja laabat teey nag te ñoom la fekk baax allahu akbar di wax di wax ba wax ay wax yu bari te la ndaw si nag ngay sànn yëngatu nag ni man de damaa bëgg sama doom ji ma labatal ko ci jigéen yooyee ah doom ji dégg ndigal ba bëgg dee nag nangu ko ko labatal ci soxna yooyee waaye xool ndaw si ni ko damaa bëgg nga baamu waatal ma melokaani jigéen yi ajana yi ma dégg déglu bu baax mu ne ko tawallada nuuru nuuri min nuuri wajhiha fa mazaja tiiba tiibi min xaalis al itri fa law watia بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما خطي ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق القدر ولو تفلت في البحر شهد ربابها لطاب لأهل البر شرب من البحر يكاد اختلاف اللحظ يجرح قدها بجارح وهم القلب من خارج الستر الله أكبر الله أكبر دقلوا ونك تولد نور النور من نور وجهها su leer doon am doom damay wax ni yaay jaag doom ja leer yaay jaag doom ja ñoom ñaar ñëpp ñi ngi soqee koo ci xar kanamu ndaw ndax ni mu leere allahu akbar leer ak yaayam leer ak yaayam ñoom ñaar ku gën a leer morom ma nga ni fii la mu ne la ñoom ñaar yëpp ñu ngi soqee ko ci xar kanamu ndaw si ndax ni ko yàlla leerale mu ni fa maataja tuy ba tuy bi min xaalis al itri li gën a neex ci xeeti gët ci àddina yi boo leen boolee dajale ak pàcc gu ndaw lañ ci xeeti xet bay génnee ca ndaw soos fa la woote ah bu dëggoo bin naali ak dàllam minha ala alxata jigéenu ajana bu wàccoon ñëw fekk ñax mu waw mu ñuy tuddee mboox mu dëgg ca tànkam mu ne la aatabatil aqtaar suuf si yëppay toppaliku neex min gayri ma xatrin te taw di wàcc la hawla wala quwata illa billah waxu la ñax ma day sax de fa law waqiat bin naali minha ala alxasa jigéenu ajana bu jëloon tànkam mu teg ko ci kaw jalab sayab mboox ñax mu waw ko addina bi yëpp soppeeku newet te taw du wàcc te xam ngeen ne rot na ci xadis bu wér yent yàlla bi neen sallallahu alayhi wa sallam benn jigéenu ajana bu yóorlu woon fii ci suuf fii leer jant bi day tane te xadis bu xadis la bu wér mu ne walaw safalat fi lbaxri shahda rudaabiha jigéen ajana bu ne xaax ni tax ci géej mu ne la taaba li ahli lbarri shurbun min albaxri suba mën nañoo takk teen yi tëj rëbële yi ndax xorom sa nekkoon ca géej ga day soppaliku nekk saf saf suukar waa jéeri ji mën a dem naan ca géej allahu akbar falaw taxaar fi lbaxri shahda rudaabiha bu ne xaax ni tax wala bu dajale ay lora ni tax ci géej gi ma ne nañ takk teen yi yàq rabile yi dem ca géej ga naan ba ndax soplitam wi génne ci gémmiñam gi mooy safal sàpp géej gi suukar ndoxam weex ma jóge fa bañ man faa naan allahu akbar àjjana la yonent yàlla ne da ngay gis jigéen joo xam nii lay def day talal loxoom rek da ngay gis jigéen joo xam dafa xeetal a xeetal a xeetal ba kenn xamut lu muy nuru yow yow daanaka yow buñ doon wax ñii wax xeetal rafet na sax xam nañ ni di mu baaxutul xoolal jigéenu àjjana moom da ci dul nekk diwante boo bëggee seet nii la lay defal nii loxoom ngay xool nga gis sa bopp allahu akbar yonent yàlla bi nee na jigéenu àjjana mën naa sol lu mat ñetti mbubb leeraayam nga day tax boo ko dandee da ngay seen yàpp yaramam bay seen yax yi ci biir yàpp yent yàlla bi nee na comme jigéen ñi suñu takkee seen bopp yi buñu lettoo comme ni ñu koy waxee nu ñu koy waxatee xaw ma susu dafa naa noonu xadis bu wér ñëw na yent yàlla bi benn susu bu jigéenu ajal buñ ko jaayoon buñ ko jëloon jaay ko valeur mën naa jënd ak ba yépp allahu akbar benn jigéenu ajal la muy takkee kawar yi boppam buñ ko jëloon jaay ko mën naa jënd addina bi yépp kawar yéen yàlla waxee Saad ibn Muaz yéen yàlla bi ni Saad ibn Muaz mi nga xam ni arasu yàlla daay yëngatu ci paatoon musuwaar ya muy pompoo ca biir ajana ja boo ko jaayoon mën naa jënd addina bi allahu akbar mbokk yi ajana ajana neex na de neex na lool yàlla nañu yàlla may nu ko yàlla na yàlla may nu ko kii jar na doy sori daal di daw ba dee dama ne kii bu fekkoonte ni yonent bi diglewul am soxna wala am borom kër te di ci soññe dama ne jar na célibataire ba dee ngir xaar foofu allahu akbar jigéen joo xam ni du jàmbat du feebar du du du sonn du gis mbërëg amul doom ma sax daa neex nag xam ngeen amul doom amul doom amul ajana lañ daan wax waaye am na xadis yu yéen daal boo bëggee doom léegi une minute nga am doom léegi mu màgg léegi ci une minute. mbokk yi ajana neex na de góor gi nga xam ne da nga gis jigéenu jaabo wala góor jigéen ji gis góoru jaabo sàcc ay xetam na yéen ñi ngi ci toit wa taatu yurisu sawaaba wa sawaaba yurisu janna topp gi day jur yiw yiw jur ajana kon xaddul basar bokk na ci li ciy gën a dimbali nit mooy muy fàttali ko ajana ak soxna ya fa nekk ah soxna soo xam ni allahu akbar aas bi nekk du ko paase aas bi nekk du ko paase du sol du feebar du wàññen du gis mbërëg du gës gësit ah allah ay weenam du sëgg uruban atraran li ashaabi lyamin wa kawaaxiba atraaban mooy koo xam ne jànq rek lay doon moo tax yonente bi doon kafak meer ba ni ko meer bi ni ko ni ko yonent bi ñaanal ma dugg àjjana mu ni ko ah yow da dugg àjjana ndax màgget du dugg àjjana allahu akbar ndaw si dina ko jooyal jooy yoo xam ni ndax moom xam nañu yonent bi du kaf du kafant fekk yonent bi li wax dëgg la da kaa bëgg a wax ni màgget ci ñi màggetee dugg àjjana yàlla da lay suq ba nga nekk ndaw mu doog lay dugal àjjana loolu la ko bëggoon a kafe te ndaw si xamul fu yonent bi waxee sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi nañuy bàyyi xel bu baax a baax li yàlla diggee jigéen jigéen wala góor jigéen gis lu bon mu bañ a wàcc ay xetam mu xool ko bànneex ba mu cay judd lu ndaw la te su paree dana ci mu am ci ay musiba ci lor yoo xam ni sawaraa ca mujj ñàkk yàlla ci àddinaa ci njëkk moo tax laa marhaban bi sururin jaa bi baram nu ngi ñaan suñu borom boole bi defal tawfiq defal nu ak tàggat ci jamono boo xam ne dundu diine jafe na lool suñu borom dimbali ñu ba jëfee gën noo yittee leneen lu dul jëfee xam jëfee nu ngi ñaan suñu borom mu gën noo yitteel leneen lu dul xam jëfe nu ngi ñaan yàlla mu war ñu dëgg ba ñu xam ko ci topp ko yomb ko yomb ñu lool nu ngi ñaan woon njaay caaxaan ba ñu xam ko te moytu ñu ko yomb ñu hada wallahu taala alam sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam